askanu ismaila ismaila moome nag doomu ibrahima jàkk ajaram misra ma doon jaamub saarata askanam mooy lii turi doomu ismaila yu góor yaad yi nebayot taawub ismaila ña ca topp di kedar ak adabel ak mipsam ak misma ak duma ak maasa ak adad ak tema ak yetur ak nafis ak kedama ñooñu ñooy doomi ismaila yu góor seeni turangoog ñuy fukki garmi ak ñaar yu jiite seeni mbooloo ci seeni sanc ak seeni dal ati ismaila téeméer la ak fanweer ak juróom ñaar gannaaw loolu la nelaw fekki ay maamam ña nga dëkkoon diggante ba dale awila ba sur nga jàkkaarloog misra booy jëm asur noonu la fa askanu Ismayla sance jàkkaarloog doomi baayam yépp